dañ fee def loo xam ne baaxul ñu indi leen fi. Hmm. yéen ngeen ñëw ngeen ne d' abord lu ngeen di njëkk def de rupture. ngeen ne da def rupture gouvernement ngeen ne vingt cinq ministres ngeen def tey vingt cinq plus quatre secrétaires d'État ça fait vingt neuf plus le premier ministre ça fait trente plus le ministre secrétaire général ça fait trente et plus le directeur de cabinet ça trente deux plus le ministre secrétaire général de la présidence ça fait. macha ba tey ba tey trimestre ñi ngi ravitaillé nañ caisse noire Diomaye barki dem ravitaillé nañ caisse noire Sonko ba tey kenn gisugul ci ci jub boobu ci jumantu boobu. foo nekk ministère des finances. non non may ma ma ñëw may ma ma ñëw maa ngi si système bi ba tey beneen bi beneen ngeen wax lu am important ngeen ngeen ngeen campagne lu am important ngeen ne. dañuy xeex surtout loolu moom a gën a métti ngeen ne dañuy xeex góor jigéen ñun bu ñu ñëwee góor jigéen la ñuy njëkk xeex. parce que ça que législative loolu ngeen campagne mm-hmm. ba tey ba tey kenn déggu ngeen jàllale projet de loi bu jëm assemblée te man waxtaan ak sama député bu ñëwee dinañ ko voté non mais même tout faire un seul jour même mu ñëw projet de a def bokkul woon projet de loi bu mooy clé d'or mi ak ak daam nga xam ay chômeur lañ hmm. mooy lanceur d'alerte ñi xëy di wër pour lancer de progrès. Bien, alors aujourd'hui nous aurons vous avez dit que tey aujourd'hui man Fatou may ma eggal juste sëñ Sall waaw waaw mais Sow Sow Sow Sow bàyyi ñu gën ne ma d'accord yaa ma dàq yaa ma dàq lépp yaa ma dàq lépp yaa ma dàq lépp xam nga il faut souffrir de nous écouter ñun avant on souffrait de vous écouter maintenant vous allez souffrir de nous écouter parce que vous avez newul ci thème bi moo tax newul ci thème bi déedéet du loolu thème bi mooy parce que xolu thème pourtant démb am na avion bu daanu waaye néew pourtant dem gis nañ ne cent pour cent ngeen di football am na ay accident sénégalais yi dee am na ay sénégalais yi bëkk ci gaal yi am na ay sénégal ba léegi defagu leen discours bu leen rassuré ba léegi waxagu leen ci lu jëm ci loolu waaw mais sow sow bàyyi ñu progressé yeneen ci place ci waaw bàyyi ñu progressé ci tam yow man non pour man loolu yëpp ci accord yi li kii wax mooy dëgg accord yi da ngeen bàyyi ba novembre ngeen suspendre yëpp parce que nee ngeen Sénégal yéen a doon wax ngeen ni Sénégal ah, y' a un million un milliard de barils de pétrole yéen a ko fi wax <laughs> un milliard de barils de pétrole yéen a ko fi wax yéen a wax faire Sénégal mun na dundal Sénégalais yéen a wax mbéy bi autosuffisance à lii am ngeen lépp léegi waaw Sow Sow doucement Sow doucement waaw façon man si si moom laay dellu si Sow parce que sànq maa ngi koy wax euh, c'est bon c'est bon c'est bon sëñ Sall les décisions yi ngeen nekk Sow euh, les micros de sëñ Sall cinq ans d'opposition s'il vous plaît. waaw. ah kon da ngay xumbal di Omar. ah da ngay xumbal quoi. non xumbal ah ok. non ça va léegi ñu daal. am na avancé saa non ñun defuñ politique politicienne ñun politique moderne la ñuy def. pour toi pour moi pour Kader pour quelqu'un. kon wàcc leen non c'est une génération. wàcc leen BM yi. qui va révolutionner wàcc leen BM yi. non non. wàcc leen oto yi ngeen di dawal. non luy gën leen oto yi. mais nan la wax kër président ne la ba ñu ngi si hôtel yi ba tey ñu ngi ci méridien ba tey. ah il faut 40 saabu bu fa jël ak ak 4 suite. Mhm. ñu ngi foofu ba tey état mooy fay. Mhm. beneen bi mooy rupture bi ngeen wax tey seen le secrétaire général de la présidence Omar Samba Ba il touche deux salaires il est le PCA de l'ENA et il est le ministre général de la paix et l'État interdit de la seule non non non pour la loolu c'est très facile que vous dites. c'est le même système qui est là c'est le même qui est la ministre. il n'était pas là du temps de Macky. il n'était pas là du temps de non il est là. pourquoi tu n'as pas dénoncé ça pourquoi tu interdit mais il fallait dénoncer ça. mais changement bu ñëwee ñoom ñoo di changement. loolu noonu bu ñëwee dañ ko war a dindi. yow ñaata salaire nga xam man j'étais payé une seule fois. mais nag mais nag am naa sama société di liggéey. te je je suis. am na kii xam na abu xam na loolu. conflit d'intérêt. conflit d'intérêt sama entreprise moo jiitu sama nomination. Ah, conflit d'intérêt eh léegi léegi sëñ Thialé léegi mën nañ jàll. non mais ah, sa ministre de l'agriculture sa ministre de l'agriculture conflit d'intérêt il a assuré financement de FONGIP. Ah. Mabouba ces agents yi nekk ci ci toolam yi. ils ont été formés par hmm. euh, par par par ONP. waaw léegi nañ dem deuxième beneen thème bi waaye tamit. allez 09 moo jot léegi ah, euh, Omar damay dellu si waat ah. ci yow sax nag laay dellu si pour parler de eh. l'APR mooy fa nga bokk du dëgg. <laughs> nee nañu Macky Sall ndax dafa saboté APR. parce que le ministre Seydou Sow affirme que l'ancien président ne voulait plus du candidat Amadou Ba te yow ay jamono génnoon nga fi quand même ne euh, Macky Sall moom moo financé campagne yu Bassirou Diomaye Faye du dëgg est-ce que sabotage dafa am si biir APR ou pas. xam nga euh, d'abord bu ñu xoolee sama communication. Hmm. parce que am na ñoo xamante ne ne Omar Sow dafa génn door a wax man depuis janvier ba tey pratiquement report bi ba tey j'ai le même discours parce que je suis resté à l'intérieur mais j'ai toujours le même discours euh, républicain bu ma mos a am peut-être y en a des gens ils ont eu la chance tey lañ ma doon xam mais képp ku xam depuis j'ai été nommé vers fin 2018 2019 ma ñëw jógee Gabon ñibbisi j'ai toujours tenu mon discours boo xamante ne moom laa gëm te moom laay wax. mais bi nga accusé léegi waaw foofu laa jëm accusation yi ñëpp xam sama accusation yi waaw ci peut ci la ma ñëpp mën a teelu parce que Sénégal mooy boo nekkul xaskat boo nekkul waxkat yenn peut-être kenn du la teelu mais peut-être ci la ma nit ñi teelu hmm. mais tey li ma wax tey li ma ci wax jóguma ci parce que la preuve en est que tey gis ngeen Abdoulaye Seydi Sow barki démb wax na ko muy lan nee na Macky Sall il les a appelés pour changer un candidat pour changement de candidat man dama je vais aller plus loin mooy président dafa woote pour que ñu mën a changer candidat am na ñu mu ñeme daf leen wax ne euh, voté leen Boun Abdallah Dionne yàlla na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana ñu ngi koy jaale ay mbokkam am na ñu mu ñame ñu ñu mu ñamewul loolu leen wax mais am na ñu ñame da leen ne mm. il faut faire à la il faut faire avec Diomaye ça ça a été toujours clair et cetera été toujours ma mm. position léegi nag peut-être ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy fësal léegi gis nañ tey. barki démb d' abord délégation Dakar bi yónnee na délégation Dakar am na délégation bu jóge Dakar ñu gis ñu organiser assemblée générale mais toujours sax day wane ne l'APR est dans une crise profonde boo xamante tey ñu wax ko ñu ñàkk ko wax Omar Sow yuuxu Ablaye Sow wax nu mu waxee mooy avec diplomatie keneen toog ci rukkam di wax ci koñ ci ak jabaram y' a une crise. lan mooy di crise bi qu'est-ce qu'il y a à hmm. aujourd'hui dañoo jóge ci ay présidentielle. Hmm. ñu dem parti au pouvoir ñu am candidat bu tudd Amadou Ba. candidat bi ñu choisir ko ci ay anam yu démocratique. Hmm. mooy lan ñu jox président Macky ne ko choisiral ñu candidat. Hmm. moom mu jàpp ne choisiral ñu Amadou Ba. ñu dem ba ci biir ñu gis le ñëpp lu lépp lu fi xew parce que bu ñu buggee ñëwaat ci peut de day gudd. ñu gis que mu fragiliser ko def ko lu koy def dàq ko ci gouvernement bi ak ñu woo. ne leen bu leen jàppale Amadou Ba damay changé candidat am na ministre am dem bu dëggal. Macky mu ne damay changé candidat. Mm-hmm. à quelques jours des élections fekk campagne bi commencé na. Mm-hmm. donc ça veut dire déstabilisation bi leer na nañ. Mm-hmm. te mooy on a on avait un budget pratiquement plus de neuf milliards lu mu ci génnee ñu dajale xaalis bi yëpp. jox ko lu ci génnee motul un milliard cinq cent lu ci des yëpp mu téye moom mu téye dimbalewul kenn jàppalewul amaana de comme avion ngeen ko abal bu dem màkk ngeen xa avion xaar ko fa mu yóbbuwaat ko Maroc yooyu yëpp kon comme léegi mburu ak soow ngeen xam ngeen lu mu fu nga yóbbu léegi loolu yëpp am ñun ñu jàpp ne bu ñu jógee ci élection présidentielle défaite bi metti lool lu ci xew-xew si dégg ngeen Ablaye Si man j'avais di même j'avais plus loin nee naa Macky Sall même dafa sàccal Jomaay Fay yow loolu li bi ko waxee yow foo ko tegoon teg ko Ablaye Si bu muy wax barki dem dañoo nangu plénipotentiel bi ci moom mu demee ba mu fekk ñu nangu plénipotentiaire bi ci moom mu fekk ñu teg beneen dispositif électoral dans tous les centres de vote Touba les, les mandataires sont venus à 14 heures les siégeants dugg ci salle yi à 14 heures on a modifié tous nos représentants téye leen on a changé le système en mettant le système des des on a enlevé le système des convocations ñu xam élection xam nañ lu may wax le sous-préfet dam ndaam mu may dégg c'est na lu may wax hmm. parce que nag système électoral am na lu ma a xam que ci biir laa nekk ñu changé suñu mandataire changé suñu siégeant bloqué lu bëri mu am lu muy am léegi loolu yëpp bu jeexee jàpp naa ne tey mu yónni délégation Dakar délégation bi Dakar boo gisee nu mu composé wu. Hmm. amul kenn ku jiite sa morom. amul kenn ku jiite sa morom mooy ar mooy Macky Sall nu mu bàyyee APR. Hmm. mooy amul kenn ku jiite. mooy lan armée mexicaine man je suis là-bas et je et je comment je léegi nag lépp loo gis bu jeexee war na am bilan mooy lan ñu ne ah ñun de daanu nañu ñu def réunion. ñi demoon ar euh, ñi demoon ci guerre bi ñëpp ku ci nekk nga rendre compte lii ñu xool lan mooy échec bi ci biir échec boobu ñu xool nu ñuy changé jéem a continuer